Yeah! زهدت أن وكان nafa وليقول waxtu siyaare ci turu mbooloo mi nga xam ne ñoo ànd ñëw tey doon saytu nataal yi ñu wax ne sëriñ bi la te biñ ko saytoo it mu nuru ko lool euh, fi ñuy tàmbalee nag mooy ndokkeel la ci weer yu nekk muy weeru koor gi nga dimbalu ni ci itam lool ci jotaay bi nga xam ne yaa ko feeñal muy al mashrabu saafi min al manbai shaafi te kenn ku ne ci ñun ñi fay ñëw xam na ne ba mu ci tàmbalee ñëw ak léegi wute nag ba mu ci ba ci dala wute ñëw ci njëriñu bi biti kon loolu mbooloo mépp ak yoon wépp ak jullit ñi bëgg lu baax lépp ñu ngi ñoo ngi ci sant di ñaan mu yàgg di topp ci ndokkeel gi mooy jàngukaay bu mag bii nga xam ne ndigalu sëñ bee woon mel na dañ la den dencaloon mu defal la ci taw lool li nga ci yéene lépp yàlla na yegg ba nga naan yeneen teggale ko te naan ko yow di la sant ci jiitu gi nga jiitu sunu kanam di nu wan nin war a ànd ak bi bokk na ci say wax liggéey bu mooy ilaau kalimatillahi al ulia bokk na ci itam bu mu laal suuf bu mu laal suuf nag soññi na sama maas gi lool kon lu jeex na nelaw jeex na man mi nga xam ne dama bindoo tayel dimbalee nga ma bu nelaw du ma ko def xel xel mu dal ma lolé yam ko dimbalé ngir kii nu andal, musta nopul musta top kon wan nga nu né gannaaw dama top ci gannaawam liggéey bi mu fi bayyi bu urno seeraan bu mu laal suuf ku yor lu laal suuf nak waxuma kon dimbal nga nu bu baax bu bu bu ba ko defit duñ ko def xel mu dal té lolou yaanu yaanu ci dund jërëjëf léegi nag liggéey bi mi ngi nii def nañ ci ay gëstu yu bari ngir ngir ngir di wóor li di wóor li rek bokk na ci cislaa yi ñu def ne yi tax ñu ñu jàpp ne mooma waxi Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana mi nga xam ne fekke woon na jotaay dafa wax ne wa kaana yowma al itnain daxwatan ubtudia fi l bina nazala cheikhu fi xufrati l qubba te nuru na ko ndax daa mel ni fi mu nekk moo gën a suufe fa lañ ñële fañ taxaw ci kaw waaw maanaam waaw indi ko maanaam ba fële la gën a feeñe wala bii sa ginnaaw si waaw waaw ndax daa mel ne daa mel ne ñële ca kaw ñoo tiim fi mu nekk ci say waaw kon mandarga wu na ci nekkoon waaw waaw fee daa mel ne moo gën a kawe fii waaw mu ne waaw والشيخ مختار بنت المذكور بجانبه وبيده إناء الطين وأخذ الشيخ آلة البناء المألج وأخذ من الطين وبسمل ووضع ثم أخذ حجراً ووضعه على الطين ففي الأمن في فين يبات فنا وعدانك من بيمنك يبالي ثم أخذ المعول وبسمل وضرب على الحجر ثم تلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ثم تنحى عن محله وصلى ركعتين تنحى عن محله من أن يكون جوجني في دم فيه وصلى rakaatee ni kon wadaa wadaa da nga mooy mujj ba la xam naa mooy taay la wala wala ñaan daal mooy moo tax ñu mujj ko mooy foto bee ci gannaaw loolu loolu la daanee la wax ji hmm. ànd ak loolu nag teewut def defoon nañ ci yeneen gëstu yoo xam ne ci taxawaayu ñoom suñu Abdou Aziz mi la tuddee woon seen bopp diwaanul maarif def nañ ci ay ay ay jàngat yu bëree bëri ci méngale melokaan yi ñu nettali ci moom ak liñ gis ci kaw nataal ba mel na ni lépp na kon daal bu fi ne liñ jàpp mooy sëriñ ku baax ku baax kee waaw ñoom ñoo ñu taxaw ci bu rafet andi ko doon la doon la jëbal lépp eh, tawfeex ji nag mooy li mu dajeeg ngay sëñ Touba tamat ko sëg waaw kon loolu ca dafa sëñ bi yow la ko defal xam naa li ci des ci leeral kon mbokk yi daañu ci ñëw incha allah. ndax ñoo ngi siyaare bu baax ñoo ngi siyaare ngeen nga te di siyaar di ñaanal ngeen yàgg fi te ndax seen yàgg fi mooy sunu njariñ it mooy sunu sunu ndimbal ñoo eh, ngi sant bu baax a baax sunu teewaay fii ci seen kanam mel na ne suñu gërug dund mu ne su am lu raw lii ngir dab seen mbég ndax seen mbég mooy mbégum sëriñ bi te lii kat ni ko sëriñ Chérif waxee daa bokk ci jagle yi nga xam ne sëriñ bi da leen ko jagleel loolu nag di di ndamal lislaam di ndamal yoonu murit di ndamal àdduna day day sofu rek ci ndam yu yi nga xam ne feeñ na di université bu mag bii bi nga xam ne mooy tabax muriti suba julliti suba sénégalais suba yi nga xam ne ñu war a dimbali jamono di jumaay masakal masalikal jumaan ju mag jooju nekk ndakaaru di firndeel seen taxawaay rek ndax booy xool photo bi ci waxtu wi mu amee daa dëppook waxtu wi ndax daa amee woon ci jamonoy guerre première guerre mondiale amee ci jamonoy mbas ñaari mbas sax jamonoy peste ak li tubaab di tudde grippe espagnole sëriñ bi doxi ci doxin wii te ñu ko doon nettali di jàng sëñ la Lamine Diop Dagana mu feeñale ko ci yéen loolu nag ak cant la te doxin woow yi kat mel na ne dafa dëppoog doxin wii ndax ci seeni dogal mel na ne ab docteur la ci seen ndimbal boole woon ngeen ma ci kuréel bi nga xam ne mooy saytu mbas mi ci 2020 waaye na ngeen ci doxe arab di ko tudde sumuud bu doon baati tubaab naan résilience adduna sépp yéemu nan jumaay tubaab musta tëju màggaluk sëriñ tubaa ngi jëfe ko mu raw fuuf nañ ko daan defee te it dara xewul loolu ñun docteur yi la njëkk a jaaxal waaye ndax lii a taxoon kat yéene moom donc bu ñu amee tawféex dajeek moom xanaa li baat wolof di wax naan ëpp ñu yeesuñu te cet jàppuñu ndax jamononte ñoo ngi yéen dimbali ngi ñu ci jariñu nañu ci yëf yi nag wóor na ma làqub sëriñ bi la ak ab dencam euh, xam naa day dugg ci ca baat ak ak ak la waxoon yéen li rek ca jumaay bantam ja ko xon yelli sey wala komandang ba ba yakon jumaa bante ya nako ko te tegu xer wi dinañ dem ba rewi nasarani ay talube serigne touba bëgg ko diko ko diko top ba man ko fago lu ëpp la ñu jumaay njaareem ci ci netal bi rek te waye lolu amul kat ndax serigne bi mom amul waaye seen dimbala ay murit murit jaar nañu fi ay julliti jullit jaar nañu fi waaye tëw feex jii nga nu defal ba daje gi yéen mu feeñale ko nii ma ko feeñale nekkoon ci album Jean Joffre nga xam ne moo doon architecte jumaa ji moom ba muy faatu 1939 la faatu waaye bagages yi ñu koy doon nante di ko doon nante di ko donnante ba ci jamono jii seen jamono ju neex jii mu dëppook jamono joojee mu feeñale ko nim ko feeñale bi mu ko génnee ci internet bi murid yi ak seen xër daal di koy daw song mu tiit ndax loolu mosu koo gis man bam koy jaay ci internet bi 3000 francs ñetti ñetti téeméer juróom benn téeméer la ko doon jaayee bañ ko ci fayee mu ne li mënta ne daal di génn daw saytuwaat li mu yor jox ko maison de vente maanaam këru njaay gi nga xam ne France moo gën a kawe ñooña booy jël biñ koy jaay bis booba ay téeméeri téeméeri photo waaye foto sëriñ bi dañ jël teg ca kanam mooy ber ko sëriñ bi ber ber bi ko yàlla ber ak fes gi mu fes bis booba mbake ca buum ga ay naara ci nekkoon ak yeneen i xeet ndax sëñ Tuubaa ñëpp ko bëgg waaye ci seen ndimbal ak seen tawféex mu dajeeg téméré at ak juróom bañu jëlé jëlee bu bi ba 11 mars 1918 njaay mi 8 mars la won murit yépp nosu andando takkatoo kenn xàmmeewul ak kenn li ñu bëggoon rek moy moy jotaay bi sa mbékk rek lañ di doon sàkku bayiwuñ kenn sëriñ sërif jité ko cim xel ci xalaat ci jëf ci dox ci wax ñu jox ko ceeg sëñ bas moom it mu nangu ko dimbali ci te jàppale ñu ci sëñ Abdou Lahad Gaynde ma boole ñoo eneen murit yi nga xam ne xamantewuñu woon ndax ñu xamante sëñ Moussa Mbacke sa mos bi mu ko bi mu déggee ne loolu am na moom demoon na bay bay bay jënd waaye comme murit yee jënd mu ne li ma jël laa jël tab bi ci ñun ñu nek ben say té bolo ñom jëwdin alaaji mbàkk yu fay fédération mouride bi nga xamné ñoo France sa mouride bop yi takato jëwdin señ Bamba cham ñom Idrissa Dia señ Kanji Ibrahima ñepp daal di booloo sëñ Xaadim Guèye li ngeen di xewal señ fallu Mbàkke ma nga won Lyon dekk ak waji don naxtan ak mom di waxtan ngir man ci jot mustafa Sow dal di tabbi pap biran jeng sama rak dëkk lëkkaloog ambassadeur ba ne France aladji Maguette Sey sab taalube mu dox ci doxinu am solo dal di ko yenu ba bis bañ koy indi kérok bir France ca ambassade ba consul yi Sénégal am fo fep dañu ñew muy bu Marseille bu Lyon bu Bordeaux ak bu Paris ànd ak ambassadeur Sénégal ba nekk UNESCO ak mbooleem ambassadeur yi nekk France bu Arabie Saoudite bu Maroc bu Tunisie ministre la culture ndax xam dayab sëriñ bi biñ ko jotee ba noppi ak ak recteur u jumaay Paris di nit ku baax wax fa wax ju am solo ndax bi mu xoolee photo bi muñ muñum sëriñ mi reem reem ju neex ji dañu fàttali sa sa jos ji mbàkke yaa neexi ree yéen rekk dimbali jamono nee na ree ji ak muuñ gi mooy leeral jamono mbàkke yàgg leen fi rek sa muritu bopp yaa ngi li nu bëgg rek mooy sàkku sa mbég ndax biñ ko jotee dañ koo saytuwaat boole kook eh, eh, jàngkat yu gën a mag ci wàllu woowu ba ñu bind ab rapport ne amul jiixi jaaxa amul sikki sàkk ci seeni paramètres bind nañ ko mu nekk livre bu mag mi ngi ci biir waaw ñu indi ko lépp ngir jëbbal si la ko lenn rek lañ ciy sàkku mooy sa meemoon lu bopp la di ci sàkku sa mbég wukuñu wutuñu ci lenn yàlla ngeen fi yàgg te gën a wér bi yëf yi

waaw waaw jërëjëf. lépp lépp lépp lépp lépp dellu ngeen ko sëriñ bi. kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ngi sant bu baax a baax a baax a baax alhamdulilah rabbil alamin waaw nii rek la hmm. waaw moom day da ngeen dégg sëriñ bi rek da ngeen ko dégg sëriñ bi moom. ah doy na waar. waaw waaw waaw moom day moom day moom day waaye man maa dellu sax ñu ne ma ko daa waxee rek sëriñ bi am na boo xam ne dama wax ne soññ soññ na gaay yàlla yëpp man maa ko wax soññ na gaay yàlla yëpp loolu sama mas naa ko wax. mas naa moo wax it ne sëriñ bi ñiwul kenn ci borom la loolu mas ko ah, ci biir loolu itam sëriñ bi gaay yàlla yëpp jox nañu seen àq te ba ci suuf eh, damay wax ne sëriñ bi moom laa jëkk a wax ne sëriñ bi xaj boromam la ndax ma ne su ko ñàkk wutul tur te du yonent du malaayka waaye nag xaj boromam xaj nag man naa xam ba xam nag ngeen gën koo gën xam muy xaj sëriñ bi xaj boromam la moom rek lañ ko mën a tuddee wax ji nag yéemul fenn ndax mel na ne ki ko xejjal yéemelu ko fenn ci boppam waaw sëriñ bi foofu la nekk ñëwul kenn ci boromam waaye ñu ko seqal ñëpp yi jox nañ leen si dàq ba ma sëkk ba ñoom ñëpp yéene nañ ko cëram boobu man foofu laay xool sëñ bi foofu laa ko digg itam te mooy dëgg ci man kon nag alhamdulilahi rabbi ndokk ak ndokk noonu ñu amee ju tol ne suñu doom bindu nu boole nag sëñ foofu la tawfeex mën a yem kon nag ñun sant rek moo ñu wax alhamdulilahi rabil alamina seen taxawaay ci nan war a nan war a yëgee sëriñ bi eh, ngeen ko taxawaay bi mat na ko jërë ngeen jëf. Ah, sëriñ bi dinaa di wax itam nag eh, faw mu feeñ faw mu feeñ ci àdduna bi xaw ma nu mu feeñee faw mu feeñ mënut a ñàkk lu xaj lu fi xaj rek ci ci xam ne sëriñ bi dana dana feeñ na ci des nag bis ba rek lañ ko xam nu ko waxee na may yoo xam ne bis ba rek lañ ko xam kon nag fa tabarakallah sant nañ sant yàlla bu baax sant yàlla bu gën a sant yàlla bu baax nag ak jéego yooyu ngeen doon seqi ak xalaat yooyu ak yitte yooyu daje yooyu ba ci jataay bi ah lu rëy lu am solo lu am solo lu mën a dundal ruu la kon nag nan nan sant leen tan sant leen yéen ñi nga xam ne yéen ñi nga doon yéen yëngu ci loolu ba ci jotaay bii bi ngeen sant bu baax nu nu nit nu sant leen ànd ko yéen jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf loolu rek ci mën a sànni ci kàddu yoo xam ne mel nu kàttan mën ko wax waaye sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan sëriñ bi du koo xam ne mas na ko waxtaan foog ko boromam toll foog ko boromam toll ah néew na ko ko toll ko borom toll xaw ma ci dara de waaye néew néew te loolu rek moo ci am solo nag loolu dong nag moo ci am solo moom la xam yàlla rek la nekk mu jox ko. jox rek dese loolu dara ci boppam lépp jox na ko borom. waaw dégg la ko. dégg la ko ci. gis naa ne ijaar yu mag yi nag jox ko sa Yuusuf bi kërub xasida gi ñuy gi ñuy defal xasida yi ñu wut ca barab boo xam ne dañ koy tàmbalee loolu ñu ngoon loolu ñu ngeen di wax mise mise ak ñu tàmbalee ko ñu fa wut barab boo xam ne dañ koy tàmbalee gise mu ngi tàmbali gise def ko def ko yii tàmbali lay doon dana yëngut rek dana yëngut ci moom rek ndax na mën koo dunde dunde ko nag mooy texe gu béel texe gu béel bu yëngut jërëjëf Lord.